désolé je te coupe. Babacar tubaab mere président ñun ñi fi nekkal président la ñu mere il faut que ça soit très clair. et je pèse bien mes mots parce que su fekkente ne tey parti dañ nit dafa da nga nekkal nit te yow ma ko nekka reflété woo aujourd'hui lu tax ñu mën a bàyyi xel sa kilifa yow yaa xeeblu sa kilifa ñun ñoo xeeblu suñu kilifa ci naka Touba xeex xuloo tendance tamante dëmm ay audio yu ñaaw wax ju ñaaw nit ñi ñoo ñu jéppi ba jéppi waale sunu kilifa c'est pas un problème de président président Macky Sall lu mu fi war a def mi ngi koy def et il va continuer à le faire parce que c'est le président de tous les Sénégalais ka nekk mi ak ki nekk Touba infrastructure lu muy def Touba lay def feneen defalul Touba lu mu defalul Louga defalul Touba lu mu defalul Kédougou mm-hmm. barki démb la ñu dem inauguré ji hôpital Kédougou Kolda ñi ngi ci seeni infrastructure Tamba fu gën a sori ci Sénégal président mi ngi fay def lam fa war a def parce que loolu lañ ko fare parce que Demba Ndiaye la ñu inauguré sa de génération ci Diamniadio ak yeneen ak yeneen terre baa ngi nii BRT bi di ñëw donc Sénégal lay tabax Touba bi ci biir Sénégal mu koy tabax nu ñu def nag ñun ñun ñun responsable politique gu APR ci département de Mbacké bi ñoo war a dugal suñu bopp ci machine wala suñu bopp ba ñu nooy ñu génn ku nekk tabaxaat sa bopp beneen façon nit parce que mënuñu nekk ci dëkk boo xamante ne bi Touba ko wax ne une ville religieuse mm-hmm. la ville sainte te ñi fi nekk war a incarner religion war a incarner sainteté fu ñu ibbee seen gémmiñ c'est pour dire des insanités dafa ñaaw nit ñi merewuñ Macky Sall ñun lañ mere man mii maa ngi ci biir donte xuloo ma xeexu mais ñii fi nekk nit ñi di xeex di xuloo di waxantalu bon image boobu la waa Touba suur doyal ci peut-être même sax dañoo soxla beneen génération de leader ñun ñëpp a war a disparaître ñun ñii man ak ñi ma àndal ak ñëpp ñu puus ñu indi beneen génération boo xamante ne bi population yi dinañ gis seen bopp ci ñooñ ñi ñuy def muy yar teggin sutura dal wax wax ju yiw wax wax ju rafet